Nous def suñu revue euh, annuelle bi euh, revue euh, conjointe Nous hein, ngi def mais aussi waxtaan ak entreprise minière yëpp ñi nga ñoom wax revue conjointe hein. il faut que nun ñu wax mais revue ñoom itam ñu joxe résultat joxe avons xalaat foofu ñu essayer donc def euh, euh, programme si euh, programme bi gis ni en tout cas bu ñuy def bilan bi nous nous euh malgré que situation bi na metti nous ay yi sax duñu exploitation artisanale rek bi mais malgré tout ça nous gis évolution évolution Nous production bi gis évolution yu am si or bi yu am si zircon bi yu am si phosphate bi mooy projet yi nga xam ni PSE daf koy daf koy xool mais am na yeneen projet yi nga xam ni bien sûr bokkul si euh, PSE bi mais am tout gis nañu ni am na ay jéego yu am yu am solo yu nu yu nu am xool nañu si euh, euh, jéego yi si projet nu suivre bi am na au moins 4 pour cent yi nga xam ni am na évolution entre daaw ak ak ren si si production yu yu am yi Euh, maintenant am na ya nga xam ne aussi war nañu ko gën a xoolaat mooy recommandation yooyu ñu def am na ñu ko gën a xoolaat war nañu xool si mbirum or bi euh, nan koy fexe bay export ñu woy expansion artisanale mooy orpailleurs yi yu am yi si euh, région Kédougou ak région Tamba ñu xool lu leen di gën a boole ci liggéey bi ñu gën leen jàppale pour ñu gën a taxaw Euh, loolu am na solo si proposition yu nu yu nu def yi la war nañu aussi euh, si lu ñu def nun du ñooy contrôler ñooy surveiller activité yi il faut que ñu am ay système yu gën a moderne am na xam àdduna bi tabay tabay évoluer euh, am na yu bëri nga xam ne léegi mën ko def il faut que ñu moderniser suñu activités yi xam ni daanu mën a def ay ay photo jël ay moy technique yi nga xam ne yi pour gën a xam vraiment lan moo am si zone production euh, minière hein. lolu ah mi nekk si proposition yu ñu def euh, yi nga xamni am aussi amna solo ñu gëna xol aussi ci mbirum zircon bi ci mbirum phosphate bi yenn activité ñu war gëna léral gëna taxawal pour vraiment production minière gëna am solo gëna a jëriñ Sénégal parce que lu gëna am solo tay la euh, production bi mu production euh, euh, parce que état bi ni minerais Sénégalais ñoko peuple il faut que donc production bi Sénégal donc ñu gëna liggéey pour mu sénégalais gën ci gis si proposition yu ñu def yi déjà wax nañu ni il faut que ñu gën a euh, euh, waxtaan euh, si ñu way contenu local contenu local mooy loolu mooy ñu fexe bay foofu

Euh, vraiment jox avantage pour ñu mën a euh, toog toog seen ay dëkk toog Sénégal euh, mën a liggéey jariñu ci Sénégal jariñ Sénégal. ñun ñii ñun war nañu gën a xool nu nuy suñu méthode yi nga xam ne méthode yu ñuy surveiller yu nuy xool yu ñuy gëstu suñu activité minière yi dañu am ay yeneen matukaay yu ñuy jël fii ak at bii di ñëw. mat ñu jël pour gën a dëgëral gën a xam vraiment lan moo xew si biir société yi ak euh, lan ñu fexe bay euh, mesurer euh, vraiment lu lu am lu génn ak lu ñuy exploiter foofu si biir société yi bon wax ngeen yenn problème yi nag xam nga problème mu douane la ak problème mu Euh, euh, euh, fiscalité yoyu ministère des finances moko moko yoré ko nun ak ministère des finances nous ñoo bokk liggéey bi nun suñu wax surveillance nun du ñuy liggéey benn partie bi ministère des finances aussi liggéey beneen partie bi donc si problème yoyu problème fiscalité nous nous am problème ak société bobu mi ngi nekk si tribunal ah parce que ñoom dem nañu euh, bay euh, saisir tribunal euh, d'arbitrage ou Paris donc lolu nun dan dem joxe suñu xalaat ñom neen d'accord nu si lolu ñu leen redressé nun dan jox suñu xalaat lu nu état bi moy ministère des finances ak ak dan daanu joxe suñu xalaat wax ni pour nun lolu nu waroon fay ñom neen d'accord nu pour lolu mais lolu si si mbirum liggéey bi le le bokk donc nous xam ni rek euh, en tout cas lu mën lu def état bi lu mën def pour gëna jappelé pour xaalis bu euh, exploitation minière di euh, di di indi Sénégal gën ci gis boppam lolu aussi moy mooy sunu liggéey motax ministère des finances def liggéey boobu motax aussi nous ñu jàppale ministère des finances pour vraiment exploitation minière yi jariñ réew mi